oo njariñ la woon Seex Astu Faal Tuubaa Ndoor ko jooy bil Mbàkke yuuxu nan di jooy gosaasa ngi ñàkk na tey xarit ba Seex Astu dundam nga barkeel na ndaxam juróom fukk ak benn ci lii la làq léppi ndam wàcc nga Seex Astu fajar ci ajjuma la dem fukki fan ak juróom ñettam fukkeelu weer wa neel na xam amul lu tool Seex Astu Faal fi nag taawam bile Seex Abdu Mbàkke yeggalee yal na fi yàgg bum talee ci barke seexi Astou Fall waaye rongoñ ya fer na tey seex Abdou yaa fi nekk tey yaatee ñu jooy sa baay ba tey si gil nga seexi Astou na yàgg jiite ay rakam te yàgg jiite taalubeem te yokki xéewal amindam ci barke seexu Astou doomi sëriñ Tuubaa yi ñoom ñépp ko maase def ko doom ngir yiw ga ak baax ga ca moom jaaraama seexu Astou sëriñ Fallu mi fonkoon na ko ba jël na ab woto may ko ko xoolee ko baayam jàpp ko man am na ngëneel Seex Astu Faal sëriñ Fallu mi fonkoon na ko ba jël na ab woto may ko ko xoolee ko baayam jàpp ko am na ngëneel Seex Astu Faal Seex Abdulaay daaw fi jóg ñëw na fi guddi ak bëccëg kër gi xam na ni ëllëg du fàtte kat borom belal Seex Abdu Xaadir nii la mel sëriñ Sohaybu nii la mel seex saali xoot noonu la mel ñëpp bëggoon seex asufaal seex murtala yendul na ko ay yooni yoon dalal na ko du dugg saalum teggi ko ngir fonk seex asufaal seex moodu xabaan mbàkke may doomi sëriñ mandumbe tey boroom xabaan kenn du ko doy kuutaat ci seexi asufaal su koy tudd xolam di tooy loola kër sëriñ Ahmad Mbacke mu sëriñ Moustapha Bassirou Mbacke ngeen gis nii ñooy daayira ñoo toog nii jugee Gossas jugee Saint-Louis jugee Thiès jugee Dakar ñëw dal fii nii si kër sëriñ Ahmad Mbacke mu sëriñ Bassirou Moustapha Bassirou mu sëriñ jooy naka jooy yu xool yu wér ñoo bokk Seex Astu mbokkam mu baax may sëriñ naar doomi ndeyam la am na cër jooy na ko jooyi xol yu wér ñoo bokk seexu ibra faal ndax sunu maam ja sooda faal ak sunu maam ja assu faal ñoo bokk seexu ibra faal naar mbokk seexu assu faal am tuuba jëf Serigne Touba rek jaaraama soxna jaaratulaa di nuyu mboolem mbokki taalibe yëpp nga xam ne màggal gi moom comme ni lim laaj rek mooy eh, li sëñ bu bëgg rek teeru gan ñi teral leen te jàppale leen ci côté yëpp fexe ba seen lépp yemb rek dara ma bañ a manqué. fii mooy ban dal. fii mooy dalu Serigne Ahmadou Mbacke mu Cheikh Moustapha Bassir. mu Cheikh Moustapha Bassir waaw waaw. mu sëñ Bassir mu sëñ Touba waaw. waaw parce que da ngay gën a leeral. daal nga gën a bëgg waaw ndax moom moom moom moom moom dalu dalu kër dalu soxna jaar la daal ndax eh, lépp soxna jaaral ndax seen seen waajur sax a Bassir moo fi def daare soxna jaare di nga xam ne daanaka at mu jot lu mu gàtt gàtt dana indi junniy nit junniy junniy donga yu mokkal alxuraan ci ay jigéen macha allah waaw loolu moom ci moom lañ ko loolu juga feex la yéen fan ngeen jóge ñun ñu ngi jóg bàyyi ko Gossas kër sëñ Ahmadou Mbacké nge ngeen jóge waaw kër sëñ Ahmadou waaw kontaan nañ ci yow waaw ñu bàyyi la nga nga wéyee liggéey bi waaw ne ci liggéey waaw waaw jërëjëf wa sallallahu ala lazidi dana ko dooba da seydina Muhammad wa sallallahu barke borom ñu ngi leen ni leen bu baax di santaat bu baax a baax baax rek ah magal gi nag moom ni ñu ko gisee moom Fall ab cant rek ak mbégte boo xamante ne tey jii tamit ñëwaa doon doon magal si tamit suñu soxna soxna Jaara Buso ndax moom tamit ñëpp eh, gis nañ lu mu def si diine bi ab jàngat la daal maanaam tamit si tamit soxna yëpp yëpp soxna tamit soxna Jaara référence si moom waaw di santaat nag bu baax a baax amaana na yee fees nag ba wax ju bëri sax duñ ko mën mais santaat nañ bu baax a baax a baax a baax far nga jógee man Dakar laa jógee Malika Malika nga jógee Malika laa jógee ñëw màggal si waaw ñëw màggal si macha allah tur bi nan la Souleymane Gueye jaajëf